merci jërëjëf. Kaay gën ngaa bëri waaw non gëj naa bëri fi ngeen passé rek. waaw. xam bi ñu ngi jëm seen di sant suñu ñaari waajur xam nga di nuyu temps fi nekk nii yëpp ak waa membre CNG bi di nuyu presse bi xam di nuyu gaa yëpp xam nga waaw di nuyu suma gaa yi mbër maa ngi leen di bëggee di nuyu suma adversaire Pape Yékini xam nga fay di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax. waaw. waaw di nuyu yéen di sant suñu ñaari waajur di sant ñu fi teew nekk si ak tey parce que bi wax nga quoi ay xale parce que ay xale espoir yoo xam nekk ci yoon day jël sa xaalis ba ñu investir coow dañ ko bu baax baax waaw parce que bi ñu ko war a wax mooy sponsor yi gën ko mën a gis sponsor yi jàpp parce que dañuy xale jigéen bu sori ñëw fii investir xaalis ci war mën a jàpp bu baax sama adversaire bi maa ngi koy nuyu a Oh, ma jëfandikoo moom fii amul ma jëfandikoo moom waaw pare nañ def ci bépp boor dañuy xaar bés bi rek a lépp mën na wax ji lépp am te muy dem gerte bàyyi sa pusaar ci waaw kii dafa baax rek mais ñuy seetaan ak paa yeeg supporters yeeg mbër yi fi sax. nañ ne kii du ma moromam. yéen yéen a gën a foo ko teg foo ko teg. Pape foo ko teg yow Oudou Oudou Ndiaye. maa nga mën maa la ko doole. waaye mooy soob rek. parce que Serigne Touba maa nga mën maa la ko doole. bu leen déggee yow boo ma xamoon doo ma jël ku doy waar sama dégg dama ne yow bu ma si jàmm moo neex eh dégg ma eh dégg ma eh. sama dégg dama ne yow bu ma si jàmm yow da nga baax rek. yow wax nga boo tàggoo say mbokk doo ko jëm. yow tamit si bi mooy waaye ñëw rek nga jëm. yow sa bopp rek yow yow si. xam nga yoru. man boo yoru. Ah, da nga réer mbir. da nga réer mbir. boo yoru da nga foog ne mbirum boppam yooyu laa. man si taxaw bi laa juddoo parce que laa juddoo. yow benn combat am na nga daaw. yow dama laa dimbali jël. dama laa jël maa ngi neuf combat. man benn combat eh laa ca waata laa ca waata bu baax. man maa ngi si cinq combat. yow da nga wax fii rek maa ngi si cinq combats. ñaar victoire benn défaite. yow da nga baax rek. dama tardé sax si période bi. dégg nga wax dëgg. kii du maag moom. dëgg jour ba daal du ma la rek daal. yow du ma ak yow. Ah, eh, lamb ji dama bokk si lu koy téye. ma yow du ma yow. yow da nga baax rek. boo lekkee paa man nga lekk góor ba nga teel lamb ko de wax. man baax nga. baax nga màggat nga. màggat nga. yow da nga baax rek. màggat nga. laa ci waatoo bu baax. yow da nga réer mbir. est-ce que wax nga yow màgget nga. da nga réer mbir rek màgget nga man de. maa la mën maa la bëgg tooge du ma sa morom. waaw sa xalaat nga wax nga wat sa sikkim bi nekk sa bopp bi. sa xalaat nga wax. kii di baax. léegi mooy sa xalaat nga wax. waaw ba suur ba rek. yow ba suur ba nga dëgg sa bopp. waaw waaw baax waaw ba suur ba. doomu séeréer la du ma sa morom. doo toog ma doomu séeréer. baax rek. bu suur ba rek ma nuyu suma mbokk séeréer yëpp. ma nuyu waa Diofior. bu suur ba boo puus doo paas. di nuyu sama grand Mamadou Dione di nuyu directeur général bi nekk euh, monument de la Renaissance waaw Birame Mbacké Diouf monsieur le ministre Matar Ba ñu ngi koy woo si combat bi docteur directeur Cheikh Kanté maa ngi koy woo si combat bi baax a baax pour mu ñëw jàpp si waaw di nuyu waa mouvement réaction yëpp di nuyu Go Faye di nuyu sama fans club bi nekk Diofior gars yaa ngi préparé une forte mobilisation pour ñëw fees stade ba mu fees dégg xam nga di nga di ñaanal suma copain grand Mbagnick suñu borom may ko waaw di nuyu gaa yëpp di sant waa parcelle un ba di leen woo si combat bi ñu ñëw jàpp si xam nga kii moom barki Serigne Touba Mbacke. waaw bu nekkul yow man te yow kan la. bu nekkul man ak yow la kan sëñ bi man ak yow kan la. man ak sa patron yow borom. yow yow yow yow yow yow yow yow mooy la. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la fi may teg sama bët yow rek. yow yow yow Mamadou Dione sama fan si club yëpp ñoom ministre Nangu Jangar. maa ngi woowaat di fi jël maa ñëpp ñëw jàpp si combat bi. di woowaat sama mbokk séeréer yëpp xam nga région de Fatick yëpp maa ngi leen di woo. di woo monsieur le ministre Mamadou Ba ma ñëw jàpp si combat bi docteur Cheikh Kanté maa ngi leen di woo bu baax. waaw maa ngi woo maa ngi woo maa ngi woo waa Kër Massar Diop di waa Ndoukoum waa Yëmbal waa benn Brac Sicap Mbao bàyyi ma ñenn maa ngi woo ñëpp di woo fu may xëy euh, défoncé maa ngi woo waa défoncé bi ñëpp maa leen woo di woo ñëpp bàyyi ma kenn wala si incha allah